Sénégal populaire lan woote ñoom waaye yëpp askan bi waaye fi mu toll nii opposition bu Sénégal gi yëpp ñëw nañ wuyu si leen benn ci Bougane Gueye mi nga xamante ni jàpp na ne moom fi ba Macky di génn ci réew mii dañoo war a booloo nekk benn ndax jot na nag régime Macky bii daan ñuy abal yéenekaay bi di laajte lan moo tax préfet bu Dakar bii di tànqam lu waaye yëpp askan bi ndax ba ñu déposé seen demande ba léegi si ñuy tontuwu mbedd lañ mujjee woo Macky Sall ànd ak jeunesse bii ci seen manifestation bi ñuy amal tey ji ci àllarba ji ci ngoon yéenekaay bi ñu xam ne et pourtant kenn yëgul mooy que ça soit Khalifa Sall Cheikh parti pur ba ci Déthié Fall ñoom ñi ñëpp auditionné nañ leen ñaari yoon ca police bu Médina lépp ngir bëgg a xam nag lan la nas ci seen manifestation tey jii yéenekaay bi dellusiwaat ci lan moo tax préfet bu Dakar bii yéex a tontu waa Yewwi bi audio yoo xamante ni dafay woote violence waaye la ko Khalifa Sall tontu moo di lii concerné wuñu lijjanti wuñu li ni mel dara mënta tere suñu rassemblement bii ñu nar amal ci àllarba ji gëm sa bu buggaan ngay dane fas yéene moom tamit daal ànd ak mobilisation bu rëy tekk si waa Yewwi bi ca place de l'Obélisque yéenekaay bi di xamal ne ci jamono boobu waa Benno Bokk Yaakaar ñoom tam di defaru ndax démb lu muy guddi guddi génn nañ def tey jii moom histoire dana ko bind ci jamono boobu moom président de république génn na Sénégal fas yéene dem ca diwaanu France yéenekaay bi ñu xamal ne xeexug Yewwi Askan dina am ci réew mi ndax pouvoir bi dooleem la bëgg a ci bisu tey jii te ñoom Ousmane Sonko ñoom fas yéene wu ñëw reculer yéenekaay bi dañu xamal waa Yewwi yaay duñ ko xaar ñoom mënuñoo comprendre lan mooy ndayu une semaine yàlla ñuy toog di xaar préfet bii tontuwu leen Ousmane takku ma ne na jeunesse bi yépp ñëw laa wax ci rassemblement bi ndax ñun leader yi bu ñuy xeex tamit jeunesse bi moo tax ñuy xeex l'observateur di ko dëggal ne li waral xeex bi yépp kay mot yi gi ñu rejeté liste titulaire bi Yewwi Askan bi te ku jiite liste boobu moo di njiitu Pastef Ousmane Sonko jëndikaay bi di xamal ne en tout cas seen dernière heure la nekk ñoom waa Yewwi bi ndax seen manifestation bii mooy seen sànni tàccu problème bi kay yéenikaay a rax ci manifestation bii tey ji dina tàng lool source aanée lii dëgg tey dëgg kay mooy préfet bu Ndakaaru ci boppam moo waroon a autoriser manifestation bii ndax waa Yewwi Askan bi jàmm dong la wootee taxaw waxtaan ak seen askan kon nag waruñu leen a li ni mel patta pataaral gi nag préfet bu Ndakaaru gii moom la nekkee lii nag moo nar a indi ci réew mi Ousmane Sonko ci biir yéenekaay bi nañ ñun benn objectif la am moo di wan Macky Sall mii ne na carte d'identité dong nga desee yoo xamante ni buñ na ay jeunes yiy nas fitna ci bisu tey bii Déthié Fall di xamal commissaire bii ci biir yéenekaay bi ne est nekkul sax ne audio yii ak vidéo yii waa benn bokk yaakaar ñoo koy def Khalifa Sall feelu ko ca wet ga di xamal commissaire bii ne ko ñun jàmm lañu woote ak waxtaan ak askan bii li ni mel nag ko def maître El Hadji ca wet ga moom yekk lu mel ne xamee Ousmane Sonko mii fitna dong nag la nar a indi ci réew mii booy xool boo xool sax ay rebelle la jëlee ca tas ci bisu tey bii te li nag dañ ko bàyyi mu jàll Bougane Gueye Dany ci biir yéen bi ne man di rejoindre naa Yewwi bi fi mu nii moom caaxaan faa xëy dëgg ci des nañu jàkkaarloo Macky Sall mii ba jëlee ko ci réew mi lii dong moo ma ñor Vox Populi moom dala Cheikh Omar Anne mi yekk lu mel ne xeme Ousmane Sonko ñoñom yi nekk ci biir Yewwi bi moom Cheikh Omar Anne di xam ci biir yéen bi ne ñàkk jom ak ñàkk kersa ñàkk kàddu gu rafet yoo yéenekaay bi ñu xamal ne sa wet ga Mimi Touré Idrissa Seck Moustapha Niass ba ci Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp ni démb lu muy guddi guddi génn nañu tey recadré waa Yewwi bi di xam ne ne ñu sóor ñu ko luñ ci góob ko gar Les ne fitna gi doon xeeñ ci Sénégal gii nag bi su tey ji lañ ko nar a yàq yéenekaay bi tuddee ko mercredi de tous les ndax opposition bi bu jël dañoo def benn say fas yéene jàkkaarloog nguuru Macky Sall gii ñoom waa Yewwi Askan bi taaral démb laa la wax ba ay 2 heures du matin ci manifestation bii Yewwi Askan Wi fas amal tey ji ci àllarba ji yéenekaay bi di xam ne ci jamono boobu tam waa Benno Bokk ngi fas yéene amal ñoom tam seen ba ci Mimi Touré au ñu fay taal bii di xam bu taal bu ñu moytul tey jii bu 15 jotee ca bu APR foofu la ñuy ànd ak ndaw yi Benno Bokk Yaakaar yii nar jëm nag ca place de l'Obélisque jàkkaarloog Yewwi Askan bi ku ànd ak moom moom lu la neex defal yàlla baax na yenn yàlla dolli jàmm ñu yendoog jàmm suba ak jàmm incha allah